date koy weddi wala comme ça quand donc mu donc l'information donc est avérée allant dans ce sens mais aussi aussi reste à vérifier mais Ousmane Sonko mi woote anti système peut-être peut-être que vous retrouvez ou wu li nga que le système aussi bien un paradoxe non Ousmane Sonko président Ousmane Sonko hmm. Hmm. Euh, bi mu Ousmane bi mu wootee lii di anti système ba hmm. man gisuma Ousmane Sonko mu si système parce que le système bi. mais Yewwi Askan Wi donc naka la ko woon a non Yewwi Askan Wi ce n'est pas le système Yewwi Askan ben ben euh, coalition la coalition bobu ay nit ñoo si nekk ñoo xam ne am na si ñoo xam ne mos hmm. mos nañu nguur. Hmm. Hmm. ak ñoo xam ne mosuñu nguur. mais système sont les mais le système bu ñuy wax bu ñuy wax système bi. xam nga waaw ñi kay ñi kay incarné. tey boo xoolee tey ñi incarné tey. Euh, système bi wala ñi nga xam ne ñoom ñoo ko incarné woon avant hmm. ñu bëri si ñoom tey dañoo retrouver wu tey man laa wax hmm. si côté Macky Sall hmm. ndax Macky Sall man dama koy sant fenn mooy ancien wu politiciens yi nekkoon biir Sénégal yëpp nga xam ne ñoom daanaka seen mbiru bopp moo leen yitteel Macky Sall da leen dajale kooku moom dama ko fi sant dafa tax nit ñi xam bu baax ñii ñooy yan façon politicien ñu xam bu baax li ñuy def exemple yan ak yan non ñi mu dajale bennoo boo ko yaakaar ak ñoom ñëpp xam nañ leen ñi mu ñi mu dajale. Hmm. mooy que ni nit ñi ñun ñi yàgg suivre luy politique. Hmm. xam ñi fi nekkoon depuis Senghor ak Abdou Diouf ak Ablaye Wade ba tey. Hmm, ñin nga xam ne ñoo nekkoon si nguur gi tey di ko jàpp rek di téye si bañ bañ si wàcc. tey ñoom ñoo ñoom la Macky Sall dajale kon ñun xam nañ bu baax pôle boobu. ni ñu mel mu am nag ñeneen ñoo xam ne ñoom mos mos nañ nguur waaye bi ñuy mos nguur dañoo dëgg woon tey Khalifa Sall ak loo ko mënta wax wax wax. Mm-hmm. mais Khalifa Sall ku dëgg woon la si bi muy nekk PS tey suñu yaay ay dëmbooj mais moom it même chose mm. ku taxaw la lu muy wax da nga koy dégg da ngay xam ne mm. kii ku dëggu la mm. ak ñeneen ak ñeneen donc ñooñu ñoo ngi woon si système bi mais ñoom ils ne sont pas le bi benn benn benn genre euh, conglomérat la boo xam ne bii tubaab yi ñoo ko fi tegoon depuis des années genre bourgeoisie la état bi bour loolu lañ ko def genre bourgeoisie la boo xasee ba toog yow yaay yow yaay moom lépp léegi nag loolu ne nit ñi nga xam ne ñoom ñoo buggoon loolu bañ a am ñu bëri dañ leen écarté dañ leen écarté ñu mel ñoom Khalifa Sall ñeneen dañ leen écarté léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk nag di jaay doole mm. ñoom ñoom si système boobu lañu moy ba léegi mm. bëgguñu ko bàyyi mm. léegi nag ñi nga xam ñoom ñooy anti système yi mooy loolu la ñuy dindi nga xam ne mbir bi lépp dañ koy delloowaat si population bi waaw ba léegi Sonko si loolu la nekk de est-ce que da ngay gis mu mu mu changé wax jooju déedéet mo ngi ci ba legi mais problème bi moy fum toll ni le pouvoir nekul si loxoom pouvoir nekul ci yeewu askan wi yeewu askan wi yorul pouvoir. Hmm. ki yor pouvoir moy Benno Bokk yakar ak ñimu andal donc ñoo ñoo yor pouvoir bi léegi ñoom ñoo waroon changer nak système biñ fi fekkoon te loolu la ñu won dañu dañoo gëmloo woon ni ah ñun buñu ñu dinañ indi lépp luy reddition de compte. compte dinañu. Hmm. indi euh lii di transparence mais est-ce que duñ ko gëmloo rek parce que comme euh, tout homme politique avant ñoo yegg pouvoir bi. non xam nga tamit nit xam nga xam nga xam nga xam nga tamit nit hmm. da koy da koy juger si acte ak si parole si hmm. si si actam ak si parole ba pare nga xam ko mais ñun mais ñun waaw y a les réalité la la réalité du pouvoir ah. waaye pouvoir boobu bu ñëwee fekk ak koo xam ne dafa am gëm-gëm hmm. am pas-pas bu dëgër kooku pouvoir du ko fëq te bëri si ñoo xam ne am nañ pas-pas boobu am nañ gëm-gëm boobu te pouvoir mun leen fëq Ousmane ko am fait partie ak ñeneen ak ñeneen donc pouvoir bi bu ñëwee si yow fekk yow sa ngëm-ngëm dafa faible. Hmm. mbiru àdduna moo la neex mais su boobaa yow da nga siy bew. loolu waral ngay bew mooy parce que yow da ngaa dem ba jàpp ni kat ah man wax dëgg fa yàlla kat man mun naa def lu ma neex. Hmm. parce que amoo ngëm-ngëm boobu pas-pas bu amoo ko. Hmm. mais ku am pas-pas bi day jàppee pouvoir bi dara. pouvoir bi benn moyen la juste pour mu mën si liggéeyal yàlla liggéeyal si ne moom population mais ku amul ngëm-ngëm boobu du du mën a du mën a gérer li nga xam moom mooy pouvoir bi comme noonu ah. donc donc dama japp ni système bi ba légui hmm. dañuy bayyi ba ñi nga xamné ñom ñaanane anti système lañ ñu ñew tok hmm. buñu buñu leen joxé ñom ñu continuer système bobu ñu la wax deug fa yalla yene ne ko ay anti système ba léegi yéen a ngi continuer système. Mm. waaye ñoom yoraguñ pouvoir bi nañ leen bàyyi ba ñu yor pouvoir bi. alors nañ leen bàyyi ba ñu yor li nga xam ne moo di pouvoir bi ma ne kon euh, aussi euh, c'est toujours cet état tête entre euh, Sonko ak ki nga xam ne moo di Idriss Seck est-ce que nekk benn piège allant li nga xam ne mooy dans le sens pour Ousmane Sonko si peut-être peut-être su nekkoon yow est-ce que di nga war a mën a accueillir ki nga xam ne moo di Idriss Seck mi nga xam ni itam moo daal di trahir en pleine forêt li nga xam ne moo di Ousmane Sonko. bon man jàpp ma ni dafa dafa trahir kii Ousmane ah. man peut être peut être peut être peut être l'opposition on peut dire. waaw euh, mooy li euh, na mënoon na continuer si opposi si opposition bi mais il a dem dem si dem si hmm. président Macky hmm. Sall. mais rencontre non wàññi du wàññi wàññi dara. Ah. wàññi du wàññi dara Ousmane Sonko. Hmm. parce que Ousmane Sonko mooy li ma la wax war na recevoir ku ko neex. parce que nit tamit xam nga ñun Sénégal dañoo am aada foo xam ne war na mën a recevoir ku ko neex sëñ Ahmed. xam nga xam nga recevoir mooy lan. Ah. mooy ah man na tey man de tey dama laa soxla. Ah. damaa bëgg ñu waxtaan. Mm, mais dama lay woo ma dama lay woo ma déglu la. xaaral dama lay woo ma déglu la da ngay ñëw dama lay déglu boo ma waxee li may wax ba pare. Mm. après man naa la tontu loolu kese la mais cela ne veut pas dire que par force ni soo ma gisee rek. Mm. automatiquement maa yow dañoo war a ànd. déedéet même sa noonu bu ne dama dama laa bëgg rencontrer. parce waxul par rapport ak boobu di waaw mais loolu dañuy dañuy xam nga nit ku nekk war am nga benn lecture si ci audience yi. Hmm. man audience man li ma siy am. Hmm. mooy que ni sa Seck sénégalais la euh, te homme public la. Hmm, war na mën a dem toog ak Sonko waxtaan ak moom. loolu loolu lu jaadu la ci dëkk. léegi nag bu toogee moom waxtaan ak moom mais Sonko moom it homme public la. te si opposition la boo moom it am na droit wax ko li mu koy wax affaire yi ay wax la rek du du animosité mm. xam nga animosité si politique mm. daanaka ren lañ ko gis mm. si période yu yii nii bi fi bi fi pouvoir bu ñëwee la ñuy gis animosité mais adversité rek moo amoon tey jamono ab Ablaye Wade Abdou Diouf mais gisoon nañu Abdou Diouf ñaata ñaata yoon la ñu wax la tëj Ablaye Wade mais teewul Abdou Diouf da ko doon dugal si gouvernement am lu tax parce que xamoon na ni kii quel que soit rek moo ñu sekk mais si vous avez politique donne animosité mais su indi sax ay mbokk nga ay mbokk mm. lañ sax mm. di ex politique la bu le dialogue comme l'a annoncé le président Macky mais est-ce que yëf euh, passé wuñu euh, suñu étape li nga dialogue tension est-ce que merci privilégier merci beaucoup xam nga mm. dialogue bi da nga passé nañ parce que ki def dialogue bi mu baax tey Macky Sall le président mënul woote dialogue ba pare. Mm. man dama koy misaal si benn mbir. mooy man munoo mënoo mënoo tëj sama papa tëj sama yaay tëj samay doom tëj sama mbokk yëpp nee ma kaay ñu toog ñu bokk table ñu añandoo reerandoo. hypocrisie la. non loolu weesu na sax hypocrisie mm. loolu boo moytu sax man mën nga ma rey sax si table boobu pour bañ ma ma génnee ñi nga tëj. donc cest à que boo bëggee ma toog a yow. Mm. da bàyyi dara. Macky Sall dafa am ñu mu beeg wala ñeneen am ñu ñu ñu tëj. lu dul yoon. ñooñu nañ leen libéré ñoom Cheikh Omar Diagne ñoom Karim ñooñ la lañ leen tëjee pour lan parce que wax nañ te ak di gis nañ ñoo xam ne wax nañ fi li gën a garaaw nañ leen libéré ba pare ba nga xam ne yow am nga loo bàyyi après nag nga woote boo wootee ne ah wax dëgg fa yàlla man bàyyi naa lii bëgg naa nag ñu toog ñu xool léegi nu ñuy defee politique mais yow nangoo bàyyi dara yaa ngi taxaw fi nga taxaw par force li ma li ma bëgg moom mooy am léegi nga bëgg nit ñi ñëw toog dialogue yow mënul nekk man du ma ko accepté li may accepté kay mooy da ngay boo ma bëggee boo bëggee toog waxtaan ak man. Mm, mm. léegi da ngay samay otage yi nga jàpp yëpp ñoom it ñu ñëw ñu toogaat ne ah wax dëgg fa yàlla kan man maa leen jàppoon jéggal leen ma. amaana damaa njuumoon waaye damaa bëgg ñu defar dëkk bi. mais sëñ Ahmed su ñu tey ba Macky Sall tey di jàpp di tëj est ce que tamit tey ji suñu séparation si wàllub euh, li nga xam ne que moo di euh, suñu li nga xam ne que moo di système judiciaire bi est ce que nekkul di am ay corrélation ak li nga xam ne que moo di euh, suñu système exécutif bi nga xam te moom le président Macky Sall daal di jiite exactement donc est ce que le prérogative le président Macky Sall la ce que mu war a mën a bàyyi di jàppee là où on parle la séparation des pouvoirs. waaw mais xam nga xam nga dëkk bu normal li ñu wax état de droit. Mm, mm. état de droit bu ñu ko waxee nekkul nekkul si ay wax mm. mais si ay jëf la. tey États-Unis tey bu ñuy demee ba di leen naw. si seen si seen démocratie. si seen justice c'est parce que dañoo am li ñuy tuddee séparation de pouvoirs. man damay misaal séparation de pouvoirs xam nga mooy lan dama koy misaal ñu ñu ñu ñu jéem a comprendre. dafa mel ni Macky Sall dañ ko jox nee ko yow yaa ñuy jiite. ñun ngi sa ginnaaw. torche boobu xam nga mooy lan. Mm. mooy pouvoir le pouvoir législatif. Mm. ñu jox ko benn parapluie ne ko bii kat mooy sa pouvoir exécutif lépp luy naaj ak muy taw yow yaa ñuy garde mm. yow yaa ñu si yiir. ñu jox ko benn jaasi ne ko jaasi bii kat mooy pouvoir judiciaire lépp lu ñuy faagaagal si kanam. yow booy dox na ko na nga ko dindi xaaxaam yeeg yooyu yëpp na nga ko dindi. loolu mooy pouvoir bi ñu ko jox. léegi nag pouvoir boobu nag war ko utiliser contre li nga xam mooy population si ginnaaw. mais moom dafa war a xool nu muy doxee ci kanam ba avancé loo ak nit ñi. Mm. mais dafa utiliser pouvoir législatif bi pour boppam. Mm. utiliser pouvoir judiciaire pour boppam. Mm. utiliser pouvoir exécutif pour boppam. les séparation de pouvoir mooy lan. pouvoir pouvoir pouvoir euh, torse bi. torse bi dañ koy jox ki nga xam ne moom mooy kenn. mu téye ko di ñu niital. ñu jox jaasi bi kenn. koo xam ne moom moo ñuy daggal wala reyal ñu bépp ñàngoor rek wala lu ñuy yàqal mom nak ñu jox ko parapluie bi ne ko téel loolu mooy séparation mooy moom lépp du nekk ci loxom mais dafa am ku yor am ku yor am ku yor loolu. Hmm. dans les textes laa wax de textes yi ci Sénégal ñoo gën a baax texte. Hmm. loolu moo si nekk mais xam nga lan la amul ay homme wala njiit bu koy exercer. li ñuy li ñuy woote projet yi nga xam moom la ñuy woote rawatina kii di MRDS ak wala PASTEF ak ñoom projet yi ñuy woote. Hmm. mooy séparation boobu am nga xam ne président du am pou plein pouvoir boobu si kaw yeneen pouvoir yi lu ko la la moo séparation amul parce que tey boo xoolee pouvoir judiciaire bi moom day xool ku ko neex mu teg ko fa mu jiite mu xool pouvoir ah, législatif nomination yi mu xool pouvoir législatif hmm. mu xool ku neex parce que hmm. tey boo xoolee kiñ fa teg moom moo moom moo diriger hmm. donc cela veut dire amul séparation donc séparation nag bu amul nag si njiit njiit bu gisee ni man pouvoir bu man maa ko yor lu ko neex lay def. Hmm. loolu nag moom moom loolu si système bi la bokk. Hmm. loolu nag moom moo war a dañ si système bi loolu bu dañee si wàññeekoo si système bi rek lu bëri après day dox parce que tey pouvoir exécutif képp ku si mënta nekk. Hmm. muy nga ministre muy muy ministre yi. di def naka sulu noonu. su boobaa pouvoir judiciaire day am pleine autorité. ñëw saisir la nee la kat lii ak lii nga defar nii kat du yoon. su boobaa fàllu yow boo amee problème ak ministre su boobaa bu la neexee nga dem porter plainte ministre bi. te pouvoir judiciaire day def liggéeyam te pouvoir exécutif du wax dara loolu mooy séparation mais séparation buñ ko buñ ko waxee rek. Hmm. te duñ ko jëfee. Hmm. amul njëriñ ñun suñu loi yi ñoo fi gën a baax mais duñ leen jëfee application yi moom moo ñu manqué. voilà c'est euh, exactement donc peut-être euh, yaakaar na ni dafa am wàllub hypocrisie le fait que Macky Sall jàpp ay ñooñu li nga xam ne moo di waa Pastef ak l'ensemble de l'opposition aussi bëgg leen woowaat li nga xam ne mooy défilé 4 avril donc le fait qu'on a désisté lu nu mel da nga ànd désister kii Invitation. invitation mais c'est normal hmm.